dëgg bi dafa war a taxaw ki nga xamante ni moom la gis parce que nee na dañ koy tuumaal ci ay rapports yi nga xamante ni aussi tamit amul maman ba jàngat nga am ci loolu. xam nga man yu bari nag du ma ko seetaan ndax gis naa maam may Ndiaye daal mu naan bi mu ko waxee Sonko Sonko dafa ne na ko baal dafa juum affaire yooyu xam nga man mënuma cee wax dara bu nekkee Ousmane Sonko moo tooñ tooñ maam Mbaye Ndiaye na ko maam may Ndiaye jéggal na ko jéggal te yàlla rek tax. ndax kul jéggal sa morom sunu borom mun laa jéggal. mun parce que dafa toog publiquement ne Ousmane Sonko am na ay rapport moo tax mu dem porte ko plainte bi mooy ñaari yoon sax dem na ji wuyu ji mais Ousmane Sonko boobu léegi kenn xamu ko lan moo waral. waaw ah, loolu mënu ci wax dara vraiment lu ma xam laay wax man daal bu nekkee Ousmane Sonko moo tooñ Mame Mbaye Niang na ko jéggal na ko Mame Mbaye Niang jéggal vraiment Mame Mbaye Niang nitu dëgg la ku baax la bu fekkente ne tamit beneen problème moo tax seen diggante. nañ nañ nañ jéggalante rek kenn ku ci nekk jox la ndax mënumaa taxaw ne Ousmane Sonko moo tooñ Mame Mbaye Niang man li Mame may ñaar dégg rek laa wax waaye may bëgg Mame may Niang bàyyi lépp mu sedd waaw ndax dégguma Ousmane Sonko lu mu wax kon man euh, dama ciy tuuti pour àtte leen wala ma wax ci dara xaw ma ca tus ah waa yal na ci yàlla wis ndox mu sedd rek te xam ne àdduna bi moom fi mu ne toll na foo xam ne euh, dañoo nekk ci deuil national deuil lañ nekk kenn warta wax sax loo xam ne waroo ko wax di ñaan yàlla si yàlla wàcc fi galaas soo mu wàcc États-Unis yàlla wàcc ko Sénégal ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm vraiment mënumaa taxaw ne maam may ñaa moo tooñ Ousmane Sonko wala dafa yab Ousmane Sonko mënuma ko mënumaa taxaw ne Ousmane Sonko moo tooñ maam may ñaa parce que la maam may ñaa wax rek laa dégg dégguma conversation euh, bu Ousmane Sonko ci mbir moomu waaw Ousmane Sonko daal xam nañ ne day tëgg am na gis nañ daal ne day tëgg na casserole le 31 man rafetluwu ma ko ndax euh, discours président de la république képp kuy sénégalais war ngaa taxaw déglu discours bu président de la république xam maanaam 2022 bi xaalis bi ñu investir lii fi mu dugg lii fii lañ ko def amoon nañ problème nangam ñun loolu la ñu bëggoon a déglu man nanguwuma woon Ousmane ko tëgg ay concert casserole ndax kenn ku ci nekk danga koy xool ci sa bopp bu fekkonte ne président Ousmane Sonko maanaam dafa doonoon président de la république Macky Sall bëgg a dugg ci pale bi ba tax Macky Sall di turbale di toog euh, di di di di di tëgg ay concert casserole du ko neex du neex Ousmane Sonko mi nekk ci nguur gi loolu moom casserole la mi mënoon naa bàyyi ba lépp paase waaye nag. gis nga waaye. tamit aussi tamit euh, maman comme ni mu ko waxee ne dafa bëgg Sénégalais yi wax lu leen metti mënuñoo génn wax moom moo tax mu déglee vingt et un. jour jour jour discours président man boog de ma part personnelle su ma jege woon Ousmane sonk du ko def noon naa waaye ba mu weesu lu tax mu taamu ci président de la république te Ousmane Sonko na xam ne Macky Sall président am la moom bés bu doonee président président Macky Sall lay doon mais na xam ne président Macky Sall président Ousmane Sonko la. na Ousmane Sonko xam ne président Macky Sall président la mu bañ ko ak mu nangu ko kon man nañ ma jéggal waaye danga maa laaj ma wax la ànduma woon ci concert casserole gis nga yàlla li muy retourné waa Ziguinchor tëggalaat nañ ko concert casserole te booy xool Casamance la affaire yi gën a bëree Casamance da ngay romb sax est-ce que xam nga Casamance am na benn digg géej booy dem ci éli duñ la may nga tëgg benn pot ñemewoo sax def bruit romb rekk ngay def bruit bi ñemewuñ ko boo nekkee ci ci eh, gaal gi di jéggi doo doo may ñu la nga def benn bruit may ñu la nga laal fa benn garab kon nga xam ne Sénégal kay ay jinne rek la fees man d'accorduma ci d'accorduma ci concert casserole mais mën naa day yee ay jinne ñun buñ nekkee xale xale bu yoree bool sax jël weñ di ko tëgg waajuram da koy dàq crise yi xale yi def yépp majeure partie loolu moo leen ko def day yée ay jinne du man maa ko wax man Ousmane Sonko bu nekkee président Sénégal la sama président lay doon su président lay doon président Ablaye lay doon ak keneen ak keneen lépp Sénégal la kenn jógewul Guinée Bissau ñoo bëgg ñoo présider kenn jógewul Gambie ñoo bëgg ñoo présider maanaam président yi yépp Sénégal la kon bu ma sañoon euh, na Ousmane Sonko def ndànk rek vraiment bu yàlla ne day doon day falu day falu mais moom dafa am jafe-jafe boo xam ne maanaam ñu ngi taxaw gis na RFI gis nga gis nga France 24 ñu bëri ñu ngi génne Ousmane Sonko vaar gis naa ko. génne vaar xanaa yu nekkoo ci dëkk bi Ousmane Sonko dafa waxoon bëggul tubaab yi du wax ak ñoom. buy wax ci chain ba gis ci chaîne tubaab sax da koy daal di dindi da koy zappe ndax du ci wax. am ci droit nga foog tamit maman. waaw xam nga comprendre loo de gis nga boo nekkee ci yoon ne lu ñëw rek bu ko yàlla dogalee dinañ ko def ndax tey dem na France 24 waxtaan na ci laaj nañ ko lu tax deful test ADN mais nangu wuccee tontu bu baax a baax. ko laajee moom moo tax di ko joxe parce que dañ ko laaj. comprendre loo de. xam nga àdduna man su ma ne Ousmane Sonko man test ADN dama koy def génn ci yàlla mooy atte damay taxaw ñu dindi sama deret léegi. mën nañ ko joxe ci neneen. déggoo lu ma la wax déggoo li ma la wax déggoo li ma la wax man su nekkoon man la Selbé Ndom ma bëgg a doon présidente de la République du Sénégal su ma waxee présidente rek sama xel day dem ci Mimi ndax jàmbaar gi mu doon ak li mu bëgg di fit mu sóor gi ba mu dëgër. ah doon doon doon Aline Sitoé Diatta bu sotti yaa ngi dégg non man damay joxe liñ ma laaj ma gérer ko mu jeex ma dem tëb dem ci leneen. damay taxaw damay taxaw ki ma joteel taxaw ñu jël deretam jël sama deret taxaw léegi léegi ñu xool ko jooni jooni dafa am ñañ ko seet mu jeex mu jëm ci leneen mm-hmm. waa mais toujours. bu ñu la interrogé ne la waxal nga ne yow doo wax affaire yi day gën a arrière rek day gën a jël temps. mais maman affaire yi yaakaaroon ne. Ah. ne ma man gis naa ma ne ko soxna si man folew ma folew ma dañ may laaj rek may wax xam nga man woowu ma la da nga ne fii sa kër la sa kër yaay la nga tax nga jékki-jékki ñëw ñu recevoir la toog waxtaan ak yow damaa war a wax rek mais man génn woon naa sax samay wax sax. génne naa sama xel sax di wax sama chaîne YouTube laa tal na gaa yi abonné Selbé Ndom TV laay du ko dindi nañ dem Selbé Ndom TV ku ma bëgg soxla dama mënta def Bamba dara mënuma def ma dem jóob dara yow mii di sama doom mënuma laa def dara waaye man damaa jëloon décision ne damay bàyyi wax ragaluma a kenn nag vraiment du damaa ragal. parce que maman audio yi comme ni nga ko waxee est nekkul euh, commencé wul leer ko sa comploté bi gars yi doon ndax commencé wul leer parce que audio yi bu mu génnee ba léegi euh, yaakaar nañ. xam nga xam nga sabar déglu rekk sabar dama lay jox misaal sabar yow yaa organiser sabar gi waaye bul xam kan mooy tëb bu la neexee nga tëb fecc fecc ba bëgga dee waaye beneen tëbkat sabar bu génnee hmm. fi mu nekk nu ñëpp nañ noppi seetaan. dégg nga ko dépensé ah, waaw. ndax li ñu wax. dégg lu mu wax. Cheikh Abdou Bara Dolly ba ba ni Kouramaki da ko woo pour jéggalu ko Kouramaki moom nee na aussi loolu amul kon dafa mel ni ñoom seen njiit. nga affaire kii affaire xam nga bul ma wax yooyu man dama mature yooyu dépassé naa ko ay woote nii ma ne nii man sama moyen bi dépassé na foofu. saat génn na am na ay kii yi nga xamante ni doon na sekk ak lenn lenn lu ci nekk rek lenn lu ci nekk rek. man mënumaa juger xam nga li ma fi mën a juger. ADN bi ñëw ñu def ko. taxaw amul dem du ma poussé dangaa jël sama deret danga koy defar may xool danga koy defar may xool mu leer nañ. su nekkee mais pourquoi ADR ñu bokk jël ci deret maman te lu ne. dégguloo li ma la wax loolu.